jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb amati nañ kontaante ak mbégte nuñ koy defee saa su ne di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àkk ci àjjuma gi euh, di ñaan suñu borom boole ñu jéggal mbokk yi tey ñu ngi fii ci Cambérène doon dëkk boo nga xamante ni dëkk cosaan la waaye tey ñu fekk fi kenn koo xamante ni champion la ci làmb waaye xale la ci làmb mu wara a bëre le 11 janvier bii ñu jëm muy Bébé Bismi mbokk yi bis mi kenn du leen ko présenté ci làmb euh, mu war a dox ci diggante moom ak Ada Fass Bébé Bismi ak Ada Fass Ndiaye production moo ko tëgg mbokk yi ñu ñëw seet si Bébé Bismi bëgg a waxtaan ak moom ci làmb ji nu mu koy waajee ak ban taxawaay la ciy taxaw ak lépp loo xamante ni ànd na ko ak ay mbokkam Bébé Bismi maa ngi lay nuyu. oui maa ngi leen ziar di bëggee xam nga di nuyu waa Cambérène gépp di ziar sama sëriñ sëñ Ablaye Thiaw di ko ñaan yàlla ko yàlla bàyyi mu gudd fan am wér gu yaram moom kalifa général bi xam nga di wax suba la ziyaaram bi nag xam nga waaw ñun moom moom lan am amuñu leen lu dul moom xam nga ñun waa Cambérène yëpp ak lu bayti rasool gi yëpp di ziyaar ñëpp di bëggee ñëpp waaw di màggal waa Cambérène bu baax a baax xam nga di nuyu sama gars yi toog ku si mel ni ñaa xam nga joo idalaay xam nga pastore xam nga sëñ bi waaw moom mooy loolu yaa ma gën a xam su ma lay jël soxna nag su ma la war a jël soxna xam nga bisam bi moom suba incha allah du yomb waaw si ziaru maam bi xam nga loolu nekk suñu kontaate fier si xam nga rek di ko wax félicitation quoi. yee waaw. nga jëm ci sa combat yaak Ada Fass xam nga kuy Ada Fass. waaw xam naa ko si làmb nii rek. Mhm. xam naa ko si làmb nii rek. yee. noo koy préparé. waaw comme ni ma daan paree combat yi rek ni ma daan paree combat yëpp waaw combat bi amu si benn kii daal waaw mais am na lu si yokk nag. yokk leen cere doole ñeex waaw comme ni ko gars yi waxee waaw xam nga boole bu rek boo waxoon amul yar. réew nag mooy loolu daal. faaw nga noo la demee. lu tax nga wax loolu amul yar réew na lu tax loolu. parce que dama xam ne nit at bi bëri naa ñaata combat dix-neuf yaakaar naa mosuma am ak benn mbër xaar ma yàlla. yee xam nga kon bu làmb taxawee xam nga ñu dañuy estaat dafa ñëw seetaan si ma seetaan si xam nga ñu sañse lu neex xam moom sañse lu neex def lu neex xëy suñu parfum def yëfu champion def yëfu noble lu naan mbër noble la quoi xam nga gaari suñu oto bu rafet xam nga ji jeex mu sànni suñu oto xeer paravi toj ba pare daw bu doon dafa sànni taxaw sax ne waaw xam nga kon ko doon lijjanti si loolu si biir géew bi bi ngeen dajee ci làmb ja la ji kañ la woon. mooy jouru làmb kii bi de premier jour ne Fallou Ndiaye ak Joket yee jour boobu la jour boobu la moom na ñëw saafoonteeg man xam nga après bu ñu demee làmb ja nga xam dina xaw a neex sax si moom naa xaw a am lu may dawal yërmande si moom mais lii dina tar si moom de. léegi pare-brise oto boobu mu toj fooy mujjee moom. si biir géew bi laay mujjee moom. si biir géew bi laay mujjee moom parce man dama ni woon sax dama koy porter mais dama demee police dañu ma booy bu ñëw ñu koy téye ndax booy ay defkatu dégâts la lu ne lay def ma xam ne nag yooyu yëpp du ko jar comme man moom yéen a ma doomu aadama di la dugal si biir kii xam man yooyu yëpp du garaaw mën naa ko gérer naa ko fajal sama bopp. police bi nekk seen kon laa dem ñu koy rëbb xam nga nit boo nekkee mbër da nga am noo doxee da nga am personnalité nit bu sa defee da nga am noo doxee quoi mais pas nga yor benn comportement bi loolu naayasul boobaa da lay sikk te xam dañ naan ndaw moom bu bëggee dem day am yar am teggin te bàyyi def yenn quoi amul sens si làmb. xaw ma moo ko def wala defu ko waaye est-ce que du dalaa xiif rek moo tax mu mu bëgg la loo pour def la lool. mar naan bu la taxee na bu la daayee naan petit bu la tijjee da ngay tëj da ngay rus de wallaahi azim waaw te yaakaar naa waxu gëléem moom xajul si pantre waaw noonu la demee nag. kon jël naa après jël mooy sol ko ket incha allah rabi. man waaj nga koy waaj ak ñaata séance ngay entraîner par jour ci làmb ji. non instant yi moom benn séance la ñuy dóor quoi mooy contact kese bu mu paree takk gant mooy loolu ndax instant trois séances la dóor diggante bi kenn mootu fi liggéey doole kenn mootu fi liggéey dara li fi mën a liggéey mooy xam-xam expérience nu mu war a demee làmb ji looloo fi des. yee expérience jël nañ ko avant ñoo jël làmba ji xam na làmba ji ñu koy bëree ak ñu ko paree bu baax xam nga jël nañ suñu matuwaay la duñ maye dara ndax waaw. booy préparer combat bi ban équipe. waaw man maa ngi équipe dóor dóoraat maa ngi dóor dóoraat yee nga nekk dóor dóoraat. non daaw fa laa bëree. daaw fa laa bëree waaw dóor dóoraat. licence yee waaw daaw waaw fa laa bëree waaw. waaw. <laughs> ban message nga am boo xamante ne yaa ngi koy lancer say supporter rek say am di jàmm ci làmb ji. man li may wax samay supporter mooy ñu ñëw def li daan def rek te incha allah rabbi làmb ji kenn du ma fa ëppalee dara. maa la ko dama dugg stade ba fees del del ba gars yi xam ne bis mi dugg na ko allah te man sama supporter xam ku leen xam-xam ne si fair play am nañ yar am nañ diine am nañ teggeen xam nga dinañ ñëw supporter seen mbër def li ñu a def bu làmba jeexee ñu dem mais nag jikkoy lébu leen yor ko nangu waaw loolu moom xam naa si ñoom jikkoy lébu bu eh, làmba jeexee jeex na mais ku leen bëgg a teg leen duñ ko nangu de. dafa am lu ko metti ndax daa bëre ondu la fu mu daan ko mu doon loo xam ne du ko métti métti waa Fass yëpp mu ne erreur boobu mu defoon ci ondu la fu da koy rectifier ci sa diggante ak bébé bismi bébé bismi Ada Fass nee na moom bu la jàppee du doy de. mais Ada day amaat lu ko métti rek. mu ngi koy amee. day amaat lu ko metti rek. du caaxaan. combat bi ñu jëm day amaat lu ko métti rek. ak Ada Fass képp doole. man de xam naa si lenn. Euh, ku ma tollool maa la ëpp doole nga ëpp ma taxul nga ëpp ma doole. yaa avance ku dàq xeex. man làmba ji incha allah rabbi lépp lu si war maa koy def soxla soxla digalu ma si dara. digalu ma ko si dara santu ma ko si dara dara dara. làmba ji maa koy gérer maa koy diriger maa koy def. santu ma ko si dara nag na taxaw rek ñëw daanu si ànd ak ay mbokkam dem ñibbi préparé wala dem xool beneen yoon mais du jaar fii incha allah rabbi ku dàq bëre. boo nee bëre wax bee bis mi xamoon bee bis mi bëre lañ ko xamee bee bis moom bëreem kenn war nañ teew ko du ma benn kele man benn kele na làmb mais man du ma mbëru benn kele loo xalaat dama koy bëree amul bëre bu ma jaaxal boo xalaat façon bëre boo xalaat dama koy bëree amul pide bu ma deful si làmb kon kooku kenn du laaj ci mën a bëreem man si bëre laa fooyee bëre laa ànd ak ñoo xamante ne ay champion dañoo teewoon làmb ku nekkoon si keppaar Yékini si yoon Yékini Yékini ah Yékini Ndakaaru jugee fa dem Yékini Soumbédioune si keppaaru Boy Kayre de xam nga ñu fa ñëw Cambérène sama dëkk xam nga xam nga ne kooku mënul mënul doon cuune si làmb daal xam nga doon ànd ak bisimilah mooy dugal si ponkal yi may jàppante ak ponkal di def lu ne kooku mënul doon cuune si làmb. Eh. bi mooy sa ñaata combat arène. bi yaakaar naa mooy sama 19 combat yaakaar naa xaw ma 18 18 combat safula 18 combat. waaw 18 combat. ñaata victoire ak ñaata défaite. yaakaar naa 5 défaite laa am. Eh, li si des ma daan amul kii. kan moo la daan. kan ma xool euh, Ndongo Lo yaakaar naa ñagas waaw ñagas Pam Ndooy Mbay Guy gi waaw yee waaw beneen bi kanati la sax waaw waaw ñeneen keneen waaw yee waaw yee waaw premier combat waaw premier combat waaw mooy boobu nekk sama deuxième combat man Eh, boobu laa ko doon saisonné woon xam rek def bëre xale doon forcer làmb xam nga làmb moom benn saa ngay def yëfu xale mais yooyu yëpp jeex na fi léegi moom ay magum jëmm xam na la xamante lu mu war a def si làmb quoi waaw. yan que ñi la daan nii ñëpp ay champion lañ ci làmb ji fi mu toll nii ku ci nekk dégg nañ la yaa ngi euh, yaa ngi fu fu sori ci làmb menum ñagas laa gisul te xaw ma fu mu nekk te xam naa ne incha allah dinañ ko seet ñan nga daan ci mbëri man ay champion rek laa daan su ma leen limal duñ fi jógee man ñi ma daan ñëpp dañ leen ràññee si làmb te dañuy def dañuy prouver si làmb xam nga man daanu ma cuune si làmb waaw ñi ma daan ñëpp ay ndaanaanu làmb lan nan ma mooy loolu xam nga yaa ma a xam daal mais ay ndaanaan rek laa daan daanu ma cuune si làmb ndaanaan rek te ñi ma daan ñëpp dañ doon wax dañoo mën a bëre ñu ma daan ñëpp dañ doon wax dañoo mën a bëre mooy loolu léegi mu dox ci diggante sa diggante ak euh, bébé bis mi bébé bis ak aada faas mais aada faas fi toll nii dafa ànd faas gépp dañu am fu ñu ko teg am yaakaar gi ñu am ci moom ban message ngay wax waa faas ak ndax làmb fi mu toll nii ñu ci bari ñu ngi naan dafa bari violence làmb ji dafa méttee gi te ñaari xale ñooy bëre ku ci nekk mbëru mbëru gox la bébé bis bu jógee Cambérène gi jóg parcelle jóg ñëpp jóg ànd ak moom Ada Fass bu jugee Fass gépp jug ànd ak moom ban message nga am yoo xamante ne yaa ngi koy lancer say supporters ci ci yar ak teggin ak non violence bi nga xamante ne ñu ngi koy wax ci làmb. waaw man li ma lay wax da nga ne Ada dëkk la man mbëru gox la fukki penc ak juróom-ñaar yëpp ak sama ginnaaw doomu lébu laa xam nga Yoff Cambérène Ngor Wakaam xam nga Cambérène de parcelle xam nga ñëpp nekk sama ginnaaw rawatina Cambérène gi bu dëkk kon kooku xam nga ni li nekk si ginnaaw macha allah xam nga kooku amul lenn lu muy kii daal man moom sama supporter moom déggoo li ma la wax gën a fair play si làmb ñoo fair mais du nangu yenn ay te ñoom violence seen yoon nekku si nag waaye ku leen bëgg teg yenn ay ko nangu de. yee te ñoom tamit xam naa jëlu sax ma leen yoon ndax am nañ yar am nañ teggin ñoom dañuy ñëw làmb neex ba mu neex commencement ba fee dañuy yëngal stade bi duñ taxaw foon fekk ñoom la ngay dégg ñoom la ngay dégg seen baat da ngay dégg seen bët dem ñibbi. yee ñun noonu am dafa mën bés te Ada bu dugg see takk leket bi ci bopp bi takk gàllaaj yi ba dugg si ci stade bi damay xam ni gaynde mer la fanaan. mos gis dugg si béy bis bi am na bi dugg di béy bis bi bi muy dugg si moo leen bu dugg bi jeexee pour neexee sax mën na dem ñibbi dugg si waxuma la baaxoo yooyu de bële bu dugg see rek. ban dugg si ngay waaj le 11 ans. non <laughs> le 11 avril incha allah damay wàcce bi xam nga si kàttanu borom bi nee nañ mooy dernier journée bu fay am si làmb bëre dóor bii dernier journée incha allah yàlla ma yàlla cëral may mën ndam si dernier journée bi fii si Dakar waaw fii si fi yàlla may ndam. yaay tëj yaay tëj stade Diop Iba Mar Diop. si kàttanu borom bi bu neexee borom bi maye yàlla dina ma jox ndam bi yàlla la ñuy ñaan kenn mënul yàlla moo mënta mooy joxe te ñun gëm nañ ni yàlla dinañu may incha allah ndax jaam sabablu rek la am te da yàlla da koy gëm doyloo ko yaakaar ko. Ada Fass benn bëre la laa gis moom muy daan moom lay daanee gaay xaw ma nag. benn bëre laa gis muy daanee gaay muy mboot te fu mu fekk fa laay dugg wet gi bu ma ko tegee su ma paree. kon damaa bëgg wax Ada ma wet googu muy coow naka teg. te man bu ñëwee ma tegal ko wet gi wan ko loolu ma ak dàq fuuf. damay ragal nga ngay daw ay Ada di di xool wet gi ba mu indi beneen kele wallahi azim billahi wallahi taala yàlla moomu bu te moo tegalee wet gi mu mu ngi si sarax te bu waa laa koy laa koy corriger war lii kenn du ko joxe si làmb day maye wet bu ko mayee laa la wax ma asonné ko si six kele yu bokkul wala sept bu si demul beneen bi day dem te day asonné du taxaw dafa mel ni ni ngay waxee bébé bis mi da ngaa su mel ni danga ko xeeb. su ma namee xeeb mbër jamono ji ma toll nii ma teetkat laa da ngay dégg mbër naan la mbër bu tegee pied bi daf may joli man pied boo teg pour man boo ma arrangé man ma pied bu bu may tànk laay bëree xam nga ko pied boo teg da koy ñaari pied laay bëree pied boo teg daf may arrangé. xeex ak bëre lan la ci gën a man ak yow lan nga ci gën a bëgg mu indi la. làmb ji ba ma bëgg mu am ñaar yëpp bëgguma si benn mu bàyyi morom bi dama bëgg mu xeex am bëre. xeex ñaata minute. dégg nga dama bëgg mu am xeex am bëre xamul xeex bëre. Ah. kang-kang dugg a génn def action rocceeku kang dugg def action rocceeku man loolu laa bëgg si làmb bëgguma sax ay minutes ay ñu koy toppa toppa noonu non da ngay def làmb bu ñu paree dañuy def ni combat yi mooy waaw yaa bëgg a xam. séntu nañ ci combat moo ama euh, Sène ak Gris xeex bu metti boobu ba làmb ji yàgg ñu xeex deret di bari ñu dem ardo si bëgg nga ci lool. mais kii tapet la kii du xeex tapet la loxoom du jug. ñu ngi jaaxal loo de la vie. bu defee gis musiba bu xeexee nag. déggoo li ma la wax bu xeexee ay mbokkam si géew la ñuy yow dugg si géew la foqati ko samay loxo naa ko dóor ba ay mbokkam foqati ko samay loxo. Ada di la gis nga jàkkaarloog moom loo koy wax. Ada bu xeexee ak man naa ko dóor ba ay mbokkam ko samay loxo maam règlement de compte la. kooku mu dégg la. Hmm. li ma la de wallaahi azim làmb dafa nekk lii mooy sama premier combat musuma bëri arène li mooy sama débuté bi laay débuté pour bëri arène pour war a nekk mbër wala lu may def. combat bi waaye xool damay doon mbër wala damay def leneen. foo toll ci wàllu mobilisation ak promoteur bi tëgg làmb ji Fallou Ndiaye. waaw mobilisation moom ñun pare na ñun jënd nañ suñuy bolog bi yaa ngi ba may woo léegi sa waay bolog bi lañ ko doon jënd nañ suñuy waaw yaa ba gars yi kontaan de bee bis bi. yee làmb daf ma jaral xam nga dama génne samay moyen bopp jënd ay bolog bi wallaahi azim doo ma si kenn di ko jënd maa génne samay moyen bopp jënd ay borogu bi yeeg yenn som bu takku teg si loxo promoteur bi xam nga def si lépp gars yi jàppale ma sama gars yi barki alxuraan kon làmb ji man jaral na ma xam nga xam nga des fois mbër dina jël làmb sax du si bàyyi xel mais mbër dina def réew de ba mbër bi bàyyi xel si làmb ji xam nga topp làmb ji. looloo ko dal nag si man. waaw. Alaba looloo ko dal si man. rek ndax xam naa ne moom bisu làmb ja dina neex dina yëngu. waaw man làmb ji ni may woo mooy waa Kambalé ak lu bayti rasul te ma gëm leen te doylu seen ñaan barki alxuraanu karim saal ma ñaanalee day dal xam naa seen maqaama xam nga di wax nan ñaanal seen doom seen xarit seen taalibe seen soppe aw ma ko dul ñoom man ñoom laay woo di wax nan ma ñaanal bu baax a baax waa kër Limaamul Mahdiyu bàyyi laa mi nga xam mooy gën di mindeef si barkeem laay ñaan Ada Fass ma toog si kawam. taal bi Seydina Limaamu du ragal te man du ma ragal damaa ñeme li may def moom laa yaakaar tey àddina ak alaaxira kon maa ngi ñaan si barkeem yàlla ma yàlla may ndam di woo waa Cambérène gépp bàyyiwuma kenn di ñaan fa général Baye Abdoulaye Thiaw mu yàgg fit am wér di woo sama papa mbaykan nag sama papa mbaykan day taxaw si affaire bu baax sonn si trop sama papa mbaykan daf may jàppal bu baax a baax a baax a baax sunu yaay antaan antaan day jàpp si affaire bu baax a baax a baax a baax amuñu fayam. wallahi azim sama papa Mbaye Thiaw transfert moom tamit à la rigueur moom day jàpp si bu baax a baax a baax boo combat bi taxee barki alxuraan kay dama ko woo dëggal combat bi taxalu mu yëkkati som bu dëgër enveloppe bu dëgër sax ni ma am demal dugg foo war a dugg yëkkati jox ma otom ma ma demal foo war a dugg lu doyul ma dolli boole ma ak sa xam nga kooku aw ma fayam xam nga sunu père Alassane Ndoye grand allo El Capo maa ngi koy ziar bu baax a baax moom tamit xam nga maa ko bis la di ko jàpp si bu baax a baax jàpp si ni si daan jàppee ndax combat bi da ko laaj xam nga di woo xam nga Adama Faye dañoo jàpp si affaire yi dañoo jàpp si bu baax a baax tamit di woo gars yëpp bàyyi ma kenn di wax Pasora nag yow moom waaw yow yaa ma gën a xam ñu ngi lay woo bu baax a baax tamit nga ñëw jàpp si moom Malick Thiaw ñu ngi lay woo nga ñëw di woo ñoom gaynde ñoom ñëpp xam nga bàyyi ñu kenn xam nga di woo gaa yëpp bëggee ñëpp fàtte ñu xam nga ku fàtte rek xamal ni mooy loolu xam nga di woo waa Kamboum yëpp di woo Mambay Niang mii la barki alxon day jàpp si affaire bu baax joo xam nga moom tamit ala digal ñoom ñëpp dañuy sonn si affaire yi Abdou Karim Baye Karim Gosé ñoom ñëpp Kamboum yëpp laa mën a wax ñoom maam Dieng xam nga ñoom Ndong Sarr xam nga bàyyiwuma kenn ñoom baaj ñoom ñëpp xam nga ku lim da ngay juum xam nga ñu matale gars yi mais wax maa ngi gis gars yi seen taxawaay ci combat ñu si sonnee xam nga ki lay yées 5 heures du matin naan la jugal ñu dem din gars yi taal seen dóor jox joxoo leen essence joxoo leen dara ñu dem xam nga signature contrat joxoo leen dara ñu jël ay oto ni la jéegal nga dem foo taxaw ñu taxaw sa ginnaaw xam nga ñoom bu dul dara sax da nga war a rayante booy yu ndaw si xam nga te Cambérène dafa am loo xam da nga laaj quoi instant beneen benn dafa jot te incha allah rek si combat bi dañ koy matale ba mat sëkk ñu xam ne Cambérène dafa am loo xamante ni moo ko moom suñu cër dañ koy jël ñoo ko moom dañ koy jël incha allah rabi ragal si dara te tiisuñu dara te bu làmb jotee bu arbitre sifflé xam ne bi dafa am loo xam da moo ko moom ci ram la da koy jël. Eh. rendez-vous la. rendez-vous le 11 janvier la maag si biir géew bi. njëkk a dugg si. incha allah rabi moom na ma jiitu si géew bi na ma jiitu esaat yëpp maa ngi koy xaar loolu yëpp na ko jiitu waaw na ma jiitu esaat njiitu ma si géew bi waaw mais bu may mujjee génn si géew bi. ah Ada Fass yëpp le client boo xamante ne xamoo foo ko yekkale Bébé Bismi li mu wax yëpp dafa mel ni am na loo xamante ne guuxal na la ko waaye làmba demee noonu mbokk yi le 11 janvier la ñuy bëre 2020 fee ci stade Iba Mar Diop Ndiaye production moo tëgg loolu. mbokk yi ñaari xale la ñoo xamante ne ku leen jàppale ci làmb ñu dem kon ñu ngi kontaan bu baax noo gisee wasaare làmb ci làmb waaw wasaare làmb moom ñu ngi koy topp moom ñu koy suivre bu baax sa guddi moom xam balaa ñoo tëdd faaw ñu seetaan ko xam seetaan seen bagage ñu ngi yokk li naan ko yokkul da wàññi mais yéen yokk quoi xam nga ñu leen di gis nañ rafetlu nañ si làmb xam di leen ñaanal yàlla affaire yi continuer sa kaw sa kanam xam di leen bëggee ñëpp di groupe di groupe euh, xew-xewul làmb xam nga am na wasaare làmb tamit tamit groupe whatsapp ñoom ñëpp di leen bëggee di leen gis ne xam ne man moom moo man damay sax bi jaaxle damay dugg si groupe ma xam ne groupe bi nii ñoom ñëpp xam nga rek man defuma ko nag loolu xam ma koy sante yàlla bu baax a baax di ko bëggee ñëpp di ko wax ni xam nga du sama man ndimbalu yàlla sunu borom la fii am fi ko yàlla dimbalee am te incha allahu rabi si kàttanu borom bi yàlla dimbali le 11 janvier incha allah mu jël ndam bi dugal ko jox waa Cambérène ndax dama ko yéene waa Cambérène incha allah rabbi ndam bi yéene ma kenn ku dul waa Cambérène te incha allah si kàttanu borom bi dinaa ko dugal Cambérène ndegam neex na borom bi incha allah. jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb gis ngeen li nga xamante ni moom la Bébé Bismi wax ci làmbam bi mu jëm diggantam ak Ada Fass noonu lañ leen di tàggoo tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba ci kanam rek ñu dem jëlee Ada xool moom it nu muy waajal bis bi jaa ngeen jëf.